jërëjëf ñu ngi leen di di leen kontaane bu baax a baax ci seen àndina ak le buzz du web la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ak kontaante la am saa ci di àndoo ak yéen mais également di waxtaane lépp loo xam ni soxal na leen ci seen dundin ak seen nekkin di am mbégte saa di àndoo ak yéen ci ay jotaay di li waral tey ñuy am jotaayu waxtaanee xam-xam ak benn kilifa boo xam ne li ñu fas yéene waxtaanee ak moom borom si kàttanu yàlla la mais également lépp loo xam ne rek euh, faj la bu jëm si aada ak cosaan di li waral seen bës di am mbégte Serigne Abdoulaye Touré Baye Fall borom si kàttanu yàlla waa seen bës ñu ngi am mbégte euh, di la jaajëfal bu baax a baax ci disponibilité bi nga xam ne may nga ñu ko. waaw ak saa ñooy char mbokk yëpp di leen joxaat euh, wàccuwaay bi bu baax a baax a baax macha allah congaan di la nuyu di la char bu baax a baax di la jox wàccuwaay bi di ñaan jàmm si réew mi te di ko sàkku tamit bu baax a baax fu waay nekk fekk nañ la fa nga nekk ne la jàpp loo xam ne la asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah macha allah sëriñ Abdoulaye Touré borom Baye Fall borom si kàttanu yàlla sëriñ bi euh, pour commencer xam nga ni wax dëgg yàlla njàqare la askan wi nekkee nawet bu wàccee ndox moo xam ni kenn mësu ko yaakaar donte ni mën nañ wax ni géej na am ndox mu bari nii ci ci ci réew mi mhm. euh, du ñàkk am na loo xam ne mën nga ñu ko ci wax mhm. waaw congaan euh, atum ren dañuy faral di ko wax toujours rek mhm. ndax ndox dina bëri lool accident yi dinañ bëri tegaat si tamit euh, dee yi macha allah waaye fal yajubillah yal na yàlla musal. Euh, li nga xam ne tey jii mën nañ ko see wax baaxee ko jàmm yàlla yi ndigam mbirum yàlla la moom moom mooy borom faxaalu li ma yuridun amaana moom moo ko nammee noonu mhm. si sunu gis-gis rek ñu ne ñu gisee ko noonu waaye terewutit loo gis rek muy musiba wala nangam am na lu mën a fànk ñu si baaxee waale jaamu yàlla yi képp ko si mën mhm. at bi nga am wala pois bi nga am âge bi wala poids bi nga peese sa bopp xam ñaata ngay peese wala nga jël at yi nga am exemple ñu ne 30 mhm. nga dem génne ko si 30 kilos ceeb wala 30 kilos dugub nga sarax ko kooku moom sarax la bu ñuy baaxee monde bi bépp doomu aadama foo nekk rek. Mhm. te mën ko rek demal nga génnee sarax boobu sans dina la musal si musiba yi nga xam ne. Mhm. amaana bëgg na taxaw wala boog moo ngi taxaw. macha allah alors sëriñ bi xam nga ni wax nga ko yàllaay def lu ko neex mais ndax it wax dëgg yàlla jotul nit ñi ku ci wut li nga xam ne mooy kaaraange comme yi na ndox mi na reyante bi aussi ci biir nit ñi tamit bari na. Mhm. waaw congaan looloo tax ba soo demee Saalum li maam daan wax da daan wax mucc ak mos. jàmm bi allah kulli al foo toll da nga war a mucc te dañoo toll si jamono joo xam ne ku amut kaaraange rek boo ko si niñ ko mën a waxee te wallahi alazim lu wér lañ lay wax. toll nañ si jamono joo xam ne ku amut kaaraange rek kon jar na jot na kon doomu aadama bi. foo mënta nekk ak foo ko mënta sàkkoo rek nga dem rek jéem a wut kaaraange def ko si sa yaram hmm. ndax damay faral di wax naa li maam daan wax rek la sëñ hmm. Fallou doon wax ko xeeb xar fa xuufa xar fa xuufa ne la fuux hmm. dañoo toll si jamono jooju tey ba nga xam ne fu waay nekk rek war nga mën a wut kaaraange def si sa yaram ba du lu nooy lu ñëw rek dal a ah, yan kaaraange yan protection nga xam ne wax dëgg yàlla mooy yi nga xamee ni euh, Serigne Ablaye Touré mën na ko baaxee nit ki ba mu dimbali ko ci li nga xamee ne ay nattu la yu yàlla di wàccee si jamono te ñuy ay mbindeef yoo xam ne aussi kenn ku nekk si ñun kaaraange rek moo la siy musal waaw kay xam nga dafa toll jamono boo xam ne comme ni nga ko waxee tey lu mel ni tey ñun li ñu si yàlla baaxee bari nañ si ay kaaraange yoo xam ne mm. tey jii fii ba suba émission bi suñ ko doon kale si maye xam-xam rek fii ba suba dañuy joxe te lu ñu joxe rek dañ koy maye point boo tëgg rek mën nañ fa junjee xam-xam boo xam ne mm. képp ku ko def dina jëriñu te lu mat lañ lay jox duñ si dagg dara mm. ndax ñun tarbu yu nañ ko te jàng nañ ko te point bu nit ñëwee rek mën nañ xam hmm. euh, li may faral di wax lu mel ni kaaraange am na si yoo xam ne am nañ ko si yu ama am doole yu mel ni mooy tabaaraka yi ngay dégg tabaaraka yi ngay dégg ñu koy liggéey ak alamtara yi hmm. sangat la boo xam ne suñ la ko joxee neuf xeeri xonk ngay wut rek tàngal ba mu tàng def si biir hmm. sangoo neuf jours su matee soo fekkee da nga bëgg lépp lu waaye def mu delluwaat si kawam su neuf jours yu matee da ngay gas neuf yooyu nga suul ko kon kaaraange bu doy waar la am na si boo xam ne grenouille lañ koy liggéey muy mbott bu dee suñ ko liggéeyee boole kook liñ koy liggéeyee ak euh, xobu poftan yi muy àndal jox la loolu nga baxal ba mu ñor nga sangoo wallaay naa ji lay waatal si yàlla ne su fekkee da nga bëgg képp ku jug dem si sëriñ rek ne diw na faatu mm. moom moom loolu dal ko si saasi mm. soo paree congaan kooku da ngay gas ba mu xóon nga suul mbott bu dee baak poftan yaak xay ba muy àndal mm. su dee da nga bëgg nit bu jël sa tur yóbbu ko si sëriñ ne diw na nekk si jafe-jafe ba xëy faatu moom mu nekk si moom ba xëy faatu soo paree demal ba si route nationale nga jël bagage yooyu nga sànni ko fa ko oto yi di jógee di ko toroxal mm-hmm. waa ji jugoon am intention toroxal na noonu lay toroxee ba xëy faatu moom subhanallah kon xam nga ne kon mm-hmm. kii dem di sànni li maam daan wax rek sooy sànni ni de ko sànni éponge ndeysaan ndax dëpp bi su amee rek mbir mi mën a nooy si yow mi koy def macha allah ah. alors sëñ Ablaye mu nekk lu am solo nga am ay liggéey yu am solo yoo xam ne yaa ngi koy jëf mu jëm ci kaaraange mais mu mel ni askan wi ah, farataaluñu lan mooy njëriñu nit war a wuti kaaraange ci boppam ak fi jamono toll waaw xam nga ku ku xeeb kaaraange tey moo tax mu musiba dina la yomb pour di la dal da ngay gis ne exemple tey ñun ñëpp ñu àndoon tey toujours da ngay gis ne ki gën a nooy bopp rek la mbir di dal lu waral loolu. amaana mën nañu wax ne jàpp nañ ne rek nit bi moom toujours da nga war a presse sa bopp loolu rek lañu fa jublu si junj ko ndax tey jii congaan da ngay gis tey li xew tey si àddunay tey bii ku jug dem liggéey la jàpp la poste boo nekk ñu yëkkati la jugal ma toog doomu doomu diw di dem bàyyi samay doom. poste bi ah congaan fi mu nekk nii directeur man maa fa war a toog mu jaral ma ma dem liggéey ko. Hmm. def ko lu nekk congaan xëy gàddu ay bagage am mu naawtal nañ ko anamu dof na anamu mu ngi si jafe-jafe yaram anamu kortu nañ ko. congaan dama lay wax na la juróom-ñaari xeetu korte yi am benn bu si ñëw ñu seppi ko comme dég teg ko fële. ak liggéey bu mu mënta doon na doon xam-xamu zulmaani yu bu mu mënta doon su ñëwee dañ koy seppi teg hmm. kon ki am njàqare jàpp ni dañ ko kortu wala bu ñëwee sëñ Ablaye Touré ak nu mu mënti feeñee ci moom bu ñëwee Ablaye Touré dindil ko ko congaan ak nu mu mënta mel dama lay limal ne la hmm. diwaanu Fatick Thiès fu mu mënta doon Fatick tey ba suñu jonn yàlla tey amul fooy dëgg sa tànk ne Baye Fall ta xamuñ ma amul hmm. biir diwaanu Fatick te lu ma defut si xam-xam amut nee naa la tey la ma caméra door a tiim maa ngi si 50 émission congaan très haute fu nekk macha allah partout dans le monde GP ñuy profiter occasion di nuyu waa diaspora bi fu nekk la sunu xam-xam di dem macha allah xam-xam njàqare bu nit am si côté am ak lu mu mënta doon si ñëwee ñu saytu ko xool ko dinañ ko ko defal taw feex si kàttanu yàlla ak mbaaxam lépp loo xam ne tawat la jàngoroy doomu adama si ñëwee ñu faj ko yàlla bi mu ne maa faram ne bàyyiwul dara rek man bàyyiwuma dara. macha allah sëñ Abdoulaye Touré ki bëgg jëflanteeg yow ci mbiru kaaraange. ndax mm-hmm. dafa war a bàyyi rek ba am problème wala nit ku toog tamit yëgoo dara ci sa yaram man nga dem wuti li nga xam mooy kaaraange ci sëñ Abdoulaye Touré ngir protéger bopp sa bopp comme ni ñu koy waxee. waaw kaaraange mën na jiitu laata mbir mi di la dal. kon du dañuy ba yëf yi ni kërti ni kii yëf yi jaxasoo nga door a wut si waroo bàyyi ba mbir mi jaxasoo nga door a dem xam nga liy sonal jàmm yàlla bi côté boobu la yaakaar naa soo demee tubaab bi suma juumul danaan mieux vaut prévenir que guérir fagaru daa gën faju mm-hmm. ndeysaan bul bàyyi ba feebar door a dem ne da ngay da ngay faju ji mm-hmm. waaw xam nga dañ naan la vaccin est préventif la sérum est curatif comme ni ko tubaab di waxee mm-hmm. kon waroo bàyyi ba feebar door a dem ne damay wuti prestamol pour faju déedéet li ko gënoon mooy ngay mucc ngay aar sa bopp yow di jugaale di waajalaale sa bopp moo gën bëgg affaire yi ne na ne jonn nga door a dem ne da ngay wuti sëriñ mm-hmm. li sonnal nit bi tey mu dem tey si sëriñ sëriñ bi laaj la cent mille francs nga ne daa tàng mbir mm-hmm. daa tombeek yow sa sa sa dimension tawat moo dem ba tollu dimension boobu mooy yaa ngi koy sooxaale tawat jàng sa yaram nga soox ba yegg foofu déedéet li gën mm. mooy jugal dem balaa mbir mi di am très bien Serigne Ablaye Touré jamono ji mu ngi fële si Thiès ci quartier Fayu numéro téléphone am di 77 029 97 00 ñu koy dàkkantale borom si kàttanu yàlla macha allah euh, Serigne bi bala maa génn ci mbirum kaaraange mu nekk lu am solo ni nga expliqué même mu mel ni ñu bari ci askan wi xëy na farataalu ñu dem wuti kaaraange. Mhm. lan mooy avantage yu nit ki war a wut kaaraange ci boppam ngir gën a mën a dund dund bu bu gën a ñoŋ. waaw xam nga avantage boobu dafa tey li nga nekk nii tey bëgg nga see yokk bu baax a baax ba yëg ko tout à fait te pourtant bëri nga ay concurrence tey si jamonoy tey jii amaana am na concurrence boo xam ne seen buzz rek moo ko teree dem tey jii su éliminer woon seen buzz rek tey dina dem avantage wut kaaraange balaa dara di xew dèjà rek moo ngi noonu si li ma la junj nii rek ma jël ko si yow. macha allah ah. muy Serigne Abdoulaye Touré Serigne bi li ñu mën a wax ci kaaraange bari na Serigne Abdoulaye Touré borom ci kàttanu yàlla Baye Fall Saloum Saloum maa ko ci boole numéro téléphone am di 77 029 97 00 jamono ji mi ngi fële si Thiès ci quartier gannaaw stade euh, bi nekk fële si boo ko woowee rek ñu borom dina def nga jëflante ak moom euh, leneen loo xam ni yàlla may na la ci ñi ci jot a jëflante ak yow aussi jot nañu ko wax euh, muy mbiru bayra lan mooy bayra Serigne bi boo ko doon tëkkal waaye tamit lan nga ñu mën a wax ci différents bayre yi nga xamee ni Serigne Abdoulaye Touré moom lay faral di liggéey. waaw bayre yi ñuy liggéey congaan bëri na façon bayre bu nekk am nañ ko am na bayre bu ñuy wax ñetti jotaay kooku si wàllum am-am lay dox wàllum fidda pour wàllum alal da ngay sangu fi taxaw ba wow muy benn jotaay sangu fee taxaw ba wow ñaari jotaay sangu fee taxaw ba wow muy ñetti jotaay am na si bayre boo xam ne bayre bukki la ki nga xam ne dafa bëgg a siiw rek euh, lu mel ni bayre boobu la ko tey ba nga takk ko fépp foo bëgg sa tur yegg fa rek dina fa yegg soo ragalee moom siiw moom bul takk bayre boobu noonu am na si beneen boo xam ne ba léegi tamit euh, ñu ngi koy tuddee bayre boo xam ne tey bayre tama la hmm. tama boobu noonu suñ ko jëlee moom la ñuy jël deru tama bi ëwee ko téere bi hmm. nga takku ko si kattu ni yàlla ak mbaaxam wallaay la angim ni tama foore noonu la say mbir di jógee di dem kon bayre moom fii ba suba mën nañ la limal façon bayre yi ñu am bayre yi nag day dox si wàllum xaalis bayre bi day dox si siiw liy siiwal nit ak liy yëkkati doomu aadama lu mel ne ay war fax naa xumaakaan aliyan war fax naa lakk zikraka xam ne say mbir day kawe hmm. sangat la boo xam ne dañ la koy jox nga taxaw fu kawe di ko sangoo hmm. si kattanu yàlla ak mbaa xam si sept jours yi matee sa mbir bu suufe woon dina kawe incha allah hmm. moom bas niveau ngay jógee dem au niveau incha allahu rabbuna kon kon Serigne Ablaye par rapport ak li ñuy dégg bayre du rek buñ ko waxee koo xam ne xëy na dañ lay sopp waaye Ablaye Touré dafay liggéey bayre xaalis bayre boo xam ni boo koy liggéey xaalis da wut si wax dëgg de ngi wax ne man sant naa yàlla wax dëgg maa ngi sant yàlla congaan nee naa la tey la ma caméra door a tiim mm. te ñun ñoo ngi sant yàlla lu sëriñ di am yàlla jox nañu ko jagleel nañu ko muy diwaanu Fatick di Thiès di Saalum gañ dëkk di Dakar Géejawaay ba tey ji ñu dem tey Thiès implante muy cité fayu ga ñu nekk mm. si Quincaillerie Justin moom sant nañ yàlla euh, bayre xaalis congaan dafa am bayre fidda xam ne da nga koy sangoo sans ubbi say mbir mm. am na si yoo xam ne ñoo ngi koy liggéey si isa waqan am na si yoo xam ne ba léegi ñoo ngi koy liggéey si euh, lu mel ni yaasin lañ koy liggéey mm. am na si yoo xam ne si ay alquran bi ngay dégg ñoo naan rabbi habli maalan jasilan kullu yow mi bi haqi mikaayil kon kullu yow mi bépp bis yàlla da lay jox xaalis bayre xaalis dafa am soo ko waxee na dina jaaxal doomu adama yi bayre nu ko nit mën a sangoo am xaalis ankay lu mën a am la bayre bi da koy sangoo sa borom di ubbi say mbir am na si boo xam ne suñ ko liggéey bi bii dix ngay def si biir mm. juróom-ñaari xeet xeetu yi bokk bokkul yu neex mm. def si biir rek jël bii dix def si bàyyi noonu di sangoo ba mat juróom-ñaari fan mm-hmm. wallahi la xam sa borom dina la defal insha allahu rabbuna am wal duniya moom teraangay àdduna di nga ko waaw muy Serigne Abdoulaye Touré boroom si kàttanu yàlla bay Fall euh, Serigne bi leneen loo xam ni yaa ngi koy wax léegi. Mhm. bayra ñetti jotaay mooy la ñetti jotaay bi dafa am aaya alquran bu ñu koy liggéeyee lu mel ne alxaariyaatu la waaye am na lu muy àndal si biir. bax da ku lu aaya am na lu ñuy dugal liggéey ko ba mu mat saafara boobu dañ la koy jox nga jënd parfum bu neex def ko si biir. ñetti jotaay nga koy sangoo mooy trois lieux yu différent mhm. bul summeeku soo xasee ba summeeku da ngay taxaw. sangu taxaw ba yaram bi fendi nga puusaat beneen côté sanguwaat ba yaram bi fendi nga puusaat beneen côté sanguwaat yaram ba fendi mm. jeex na tey kese nga koy sangoo amul sangu suba mm. te si kàttanu yàlla ak mbaaxam soo si noppee xoolal sa am amu démb ak sa am amu tey nu muy mel da ngay yokk financièrement sa borom da lay jox xaalis wërsëg bu yaatu dina jógee koñ bu nekk di la ñëwal incha allah rabbuna d'accord très bien balaa temps bi di jeex dinaa ñëw ci ñi nga xam ne ñoo nekk bi euh, fële ci bitim réew am loo xam ne aussi ñu bari ci askan wi da leen di soxal xam nga ni jamono ji kër yi neexatul crise mariage bari na mhm. euh, sëy yi yàggatul ah <laughs> euh, sëriñ bi bayra nopp wala ban solution nga ñu mën a wax ci li nga xamee ne Serigne Abdoulaye Touré dina koy liggéey mu jëm ci nopp congaan nopp ñoo ngi si am doole adduna yëpp xam nañ ñu si nopp am na benn graisse bu ma siy joxe boo xam ne graisse su mbëtt la ak li ñu ko liggéey ñàppat taan ñàpp rek lay def mbëggeel gi day neex lool wallaay langim soxna su bëgg néegu sëyam neex borom kër gu bëgg néegu sëyam neex jàmm am kooku su dawee ñëw si kàttanu yàlla dina am lu taw féexe luñ ko si jox su ko xasee def macha allah dina toogaat woo ñu ne sant naa bu baax a baax mm-hmm. ba léegi tamit euh, am na si loo xam ne mën nañ ko see maye muy ñetti turu yàlla yoo xam ne muy yaa badooxu yaa waduudu ak yaa haadi mm-hmm. dama koy faral di wax naan yaa ba dooxu vingt jàpp yaa wa duudu vingt jàpp yaa xaadi vingt jàpp ku bëgg di nopp wala kol yi di neex di bokk doon benn rek mhm. del faral di wérdu yaa baddooxu yaa baddooxu ba muy 20 yaa waduudu yaa ba muy 20 yaa xaadi yaa xaadi ba muy 20 nga koy ëf su nourriture bi mm. mooy lekk bi ngeen di bokk lekk wala naan gi ngeen di bokk naan incha allah xol bu naan wala xol bu lekk rek mbëggeel gi dina neex lool macha allah dina wàññi daal xuloo yéeg dina mu jëm ci loolu nga xam ni xëy na góor wala jigéen bi nga xam ne soxla na ko tamit ci mariage am wala kër bu ko soxla mm-hmm. mën nga si di ko ñun tuuti a alquran la am yoo xam ne phaasu lu mel ni graisse yi ma lay wax ne lu mel ni graisse mbëtt bi la am noob ne ñoo ngi koy liggéey si wàll xaytu xam ne si xale mu lañ yoo xam ne ñoo ngi koy liggéeyee si lu mel ni euh, yaawa yooyu noonu mm. léegi nag bayro yu nu mu tudd noob yooyu dafa doon noob yoo xam ne noob yu ama am doole la damay faral di wax naan soxna si su bëggul borom këram sax bu mu ko ko di def mm. borom kër gi su bëggul soxna si sax bu mu ko def noob yooyu ndax après dig si bëgg a génn mu të ndax dafa doon noob yoo xam ne dafa am am doole joo xam ne macha allah mhm. suñ la ko liggéeylee moom jàmm dina am ba faw insha allahu rabbuna mhm. dinañ ko ñàkk su lu doon yàq su doon dafa dañoo jugoon di yàq mhm. gàllaaje yàq lu mënta doon dinañ ko fànq ba pare non seulement te dinañ la jox li gën a neexal néegu sëy bi ba jàmm am fa Serigne Ablaye Touré lu soxal ñu bëree bëri ci askan wi ci ndaw ñi mooy li nga xam ni moom la ñuy faral di wax ouverture ah yéen yéen ndonga daar yi ngeen koy wax fatxu Serigne bi fatxu bari nay njëriñ lool mais mu mel ni tamit ñu bari ci dañ koy soxla xam naan la ñuy def ba am ko nga ñu mën a wax ci li nga xam mooy bayre boo xam ne day jëriñ doomu aadama bi te mu nekk ci Serigne Ablaye Touré képp ku mu soxal de si kàttanu yàlla ak maa xam xanaa ñu ñàkk jëflante waaye suñu jëflante di nga si am loo xam ne dootoo ko soxlaati feneen ba koy wëti lu jëm si ubbeeku lu mm. jëm goo xam ne mm. di nga ko am si ñun ba dootoo ko soxlaati feneen di ko wëti képp ku si bëgg a am lu leer rek si kàttanu yàlla dawal nga ñëw incha allahu rabbana liñ la siy jox dina la jëriñ àdduna dina la jëriñ abadan ala ala kulli al yàlla dina la defal tawféex ba nga xam ne yow di nga gis sa bopp ba gis ne kat man mi wax dëgg bu baax ak ubbeeku bu baax a baax si samay mbir te sambrom dina taal dina développé mbir ba muy dox normal moo xam ki yëngu ci jaay la moo xam ci lu nit mën di yëngu tamit bu muy juumul si lu nit mënta yëngu dafa am luy dox si mbiram hmm. dafa am koo xam ne tey jii dafa bëgg yëkkatiku maanaam tey ji dafa nekk ci commerce. bëgg lu yëkkati place bi. maanaam ouverture ci commerce ouverture wàllum place bi. Mhm. jëmm ji dañ koy ubbi moom avant dara ubbiwaat place bi encore. ndax jëmm ji kese mën na neex ubbeeku te place bi ubbeekuwul na place boobu dañ koy yàqoon. dañuy fànq dina yàq-yàq ba yëpp daf ko iftaal toj li nekk si place ba non seulement te dina lay jox loo xam ne macha allah jaamiu lay doon mbooloo mi dinañ jógee fu nekk di fa ñëw incha allahu rabbuna Serigne nekk fële diwaanu Thiès euh, quartier Fayu képp koo xam ne bëgg nga jokkoo ak moom numéro téléphone bi nga xamee ni ci la disponible pour WhatsApp mooy 77 bi nga xamee ni WhatsApp mbokk yu nekk bitim réew tamit mën ngeen ko si jot euh, Serigne bi leneen loo ni dafa nekk tendance mhm. feebaru rab ñu bari ñu naan raba la def ngay am problème mu biir buy métti doo am mhm. bopp buy métti xale yu jigéen ñi seen bopp yi di métti mhm. ñenn ñi bu ñu duggee ci say ñetti fan jóge fa ñii duñu mën a am jëkkër lañ ngeen mën a wax ci danger yi nga xamee moom la rab di teg nit ki ak li koy yàqal waaw li koy yàqal ak danger yi koy teg bëri na xam nga euh, congaan rab mën na la téye ba nga euh, si sa géerug dund doo dégg alxayri su dee ku ki la muy ku jigéen ki la du musa am loo yaakaar mu tas loo loo yor mu lox bi day senn mën nga téye tey 1 million di nga pare naan fan la jaar ñenn ñi gënt di sëy da leen koy def muy góor di jigéen gi ñenn ñi seen i règle lay jàpp di ko perturber kon loolu ay fee la yoo xam ne su la dalee mën nañ ko faa xamee waaye ki nga xam ne da koo dal incha allahu rabbuna maam joxoon nañu si secret bu doy waar boo xam ne képp ku ñëw bañ sangat la ko muy sangat bi ñu lay jox nga si góox ñetti góox di sangu ba man ñetti fan dama bépp faru rab wala rab bu mu fekk si sa yaram daf koy dinde ba mu set wicc incha allah yàlla bi mu xamee ne am na ko damay faral di wax si alquran lépp di sunu référence mooy aaya alquran yi si yàlla indi dafa bëri kon kenaan naan kenn mënu koo faj wala faru rab faru rab moom dafa teer mm. muy soxna si mu dal mu lamb lool du dégal xayri ëmb bu mu ëmb mu gént di sëy say règle di perturbé wu sëy boo am mu tas amaana rab soxor bi dina soxor bay rey say borom kër ngay tëy nji rek loolu faru rab moo koy def képp ku mu dal si kattanu yàlla soo ñëwee ñu seppi ko teg ko fële mm-hmm. sëriñ Ablaye Touré ñu bari aussi souvent du ñu soxla dañuy soxla pour xam ko mais du ñu am possibilité xam ko mm-hmm. lan mooy waral mooy causer souvent aussi rab di dugg nit ki waaw rab li tax muy dugg nit ki mooy mbir yi exemple dama koy faral di wax tey ji man Baye Fall nit gis ma sopp ma tey bëgg ma rab dina gisee doomu aadama bi noonu muy faru rab bi ba bëgg ko moo tax ñu ne far bëgg gi mu koy bëgg moo waral muy dugg yenn solin yi si soxna yi dina koy def nañuy moytu di jël seen i coton seeni coton yi ñuy gisee seen i mbaax di ko jël di ko sànni si sën lu jar a bàyyi xel rek ñoom dañuy sànni rek cheikh jeex na tàkk te lu gë lu jar a xel moo ngi noonu danger la ci danger la si nañ xam ne sën ba ñuy sànni mm-hmm. ci nañ rab nu mel moo ngi seen deret bañ sànni tey mu dem fa tey bokk na si liy causé tey faru rab di nekk si seen yaram seen colin bu gàtt rab bi gis la bëgg la dugg la mhm. lu nu mel da koy def mhm. nga dëkkak noon bi ñu bàyyi wat xel bu baax lii may wax nga jël sa coton règle sànni si biir kër gi noonu ba jël dem jël nal jem jox kiy liggéeyee jalaam mu nàndal lu kenn xamut ma wax tey ma wax la tey lu doy waar tey mhm. jinne jooju noonu ñuy nàndal deret ji kooku heure bu soxlawee da ngay gis règle mooy ñi ngay gis ñu téye règle di ko dem un mois du taxaw. waaw loolu de léegi dafa bari sax sëriñ bi. yàlla dina saafaraw. Hmm. chifaaw rek lay doon. macha allah congaan faru dafa teer hmm. teer man dafa teer teer si man. Hmm. waa dafa teer a teer pour man. Hmm. wàllum rab yi ñuy wax nii ay alquran yàlla indi nee naa la bari na xul uhiya muy sóoratu jinne hmm. amana rasul law anzalna in rabbakum allahu lazi xalaqa samawati wal ard benn boo si jëlle congaan dafa neex lool si faj rab wala faj faru rab si kaw nga xam absolument ay code la rek soo hmm. xamee code bi ak sarax bi fooy jaar rek day yomb macha allah Serigne Abdoulaye Touré yàlla moom la seen bés doon am ak jotaay Serigne bi bala maa jeexal suñu mbokk yi nga xamee ni ñu ngi ci bitim réew ñoom yàlla def na léeg-léeg gàllankoor bi leen di gën a sonal mooy bëgg ñibbisi tam góor ñibbisi li tax mooy problème kayit ak lijjanti yu demee noonu ki nga xamee ni dafay sonn pour am kayit suñu borom jàppandalu ko ndax mën na jëflanteeg Baye Fall. bu baax a baax congaan partout dans le monde macha allah ñoo ngi sant yàlla GP bari nañ ko maanaam dañuy wax ne diaspora bi min nañ jëmm ji muy Baye Fall Saalum Saalum euh, congaan fu nekk suñuy GP moo ngi fay dem te dafa bëri ñoo xam ne loolu moo leen gàllankoor muy wàllum kayit ñenn ñi dem nañ ba këyit gi leen jafe dem na ba ñu yóbbu seeni soxna ñu fekki leen ngir ñàkk këyit ngir yàgg guñ fa yàgg ku yàlla nattoo ba loolu dal la si kàttanu yàlla ak mbaaxam suñu jëflantee sambram dina la defal jàmm euh, dafa am ay alxuraan yoo xam ne yàlla daf ko junj kese sax si wàllum tukki ak wàllum këyit lu mel ne rexlaata si taa i wasey fii mooy les voyages d'hiver et d'été si mm-hmm. kàttanu yàlla ak mbaaxam am na lu ñu siy liggéey si sa adatu tur ak sa turu suñ ko liggéey sa tur ak sa turu yaay jox la ko liggéey li ñuy liggéey rek laata si tay wasey fii si kàttanu yàlla réew ma nga bëgg a dem léegi sambrom jëlee la fii yóbbu la si beneen réew mi incha allah hmm. muy ki bëgg a tukki ak ki nekk réew ma bëgg a dellu si waat Sénégal moo xam fu mu bëgg a dellu si waat kon ñi nekk ci réew mi tamit a tukki tamit am nañ avantage nekk amuñ kayit wala bëgg a am nañ avantage pour jëflanteeg man incha allah macha allah ñi nekk bitim réew bëgg a jokkoo bi ñu lay jokkee nga ko wax mooy 77 029 97 00 Serigne Abdoulaye Touré Baye Fall bala maa jeexal euh, wax ak yow ci euh, li nga xamee ni samay mbokk yu jigéen yu bari dañ ma koy faral di laaj souvent. Mhm. problème mu ëmb. ku ëmb ñaari weer mu tuuru. bëgg mhm. doom say fukki at ak juróom munoo am doom. Mhm. ndax loolu am nga solution boo xam ne yaakaar nga ni mbokk yi bu ñu ci jëflanteeg yow seen soxla dina fa. la koy def gàllaaj gu bon a ngi nii. congaan mën naa laa liggéey ba doo dégg yaay. Hmm. benn ñaareel bis topp wàllum rab dina koy def ëmb boo ëmb mu yàqu rab bi dinay def say règle dina ko téye 2 mois 3 mois nga ñort ne dangaa nekk jigéen fekk na dara nekku fa sa biir mu téye ko gonflé ko ba nga yaakaar ne da nga nekk jigéen nga dem hôpital ñu ne la nangam fekk na dara nekku fa loolu kon def-def mën na ko rab mën na ko mhm. kon bu mu si mënta doon si kàttanu yàlla soo ñëwee ñu dindi ko ba yàlla defal la nga dégg yaay te aaya alxuraan yi indi takk ndeer am na aaya alxuraan yi nga xam ne dafa indi takk pour yàlla may la ab takk ndeer ko mm. wala nangam mm. loolu na ko d'accord lu mel ni rabbi habli maalan ja lu mel ni euh, euh, rabbi la tazarni fardan wa anta xayrul waarisin mm-hmm. am na rek lu ñu si liggéey loo xam ne foofu rek lañ koy jaaree te sambrom da lay defal nga dégg yaay booy incha allah macha allah muy Serigne Abdoulaye Touré Baye Fall borom si kàttanu yàlla nekk fële si diwaanu Thiès euh, quartier Fayu bi nga xamee ni moo nekk whatsapp bi mooy 77 029 yi nga xamee ni pour ñi nekk ci réew mi la soxal ñu ngi leen koy affiché xam-xam nga wax ci tuuti mhm. coowal politique bi nga xamee ni vraiment léeg-léeg ñu nemee ko ci penc mi ba souvent muy jur njàqare mhm. mais également li nga xamee ni mooy rey bu bari bi nga xamee ni nemmeeku nañ ko jamono ji mu bari mhm. ñuy rey nit ci ay cause yoo xam ne xëy na ki ko def sax mënu ko xam lan nga ñu mën a wax ci li nga xamee ni ci sa domaine spirituellement jàpp nga ni moo koy causé euh, bokk na si xabtalu guddi yi ñu toll ndax euh, gis nga wàllum sacrifice su tey bokk na si lu causé loolu lépp congaan damay faral di wax naan amwaal dunia alalu àdduna wala tarangay àdduna waru laa jaral tuur bakkanu bëy sax waxu malaak di tuur bakkanu doomu aadama yenn yi wàllum jinne yeeg rab yi nga xam ne dugg nañ tey si biir réew mi xattal doomu aadama bi ba nga xam ne dina yëkkati paaka rey nit te sax du ko tey kon loolu yëpp nañ koy bàyyi xel mooy toujours li ma la doon wax si njëlbeen rek si wàllum kaaraange te ñuy moytu lu bëri tamit si guddi yi ñu tollu tey jii dina la xabtal ba def loola te fekk loolu lépp mbirum shayatin rek moo koy def waaye fal yaju yàlla nañ si yàlla di musal rek dama ne ku si yàlla musal nit dina xabtal nit nit dina xabtal naa laa xabtal ba nga xam ne di nga def loo xam ne ma bañ la rek hmm. xabtal la ba nga dem rey nit doo ko tey hmm. ma si sëriñ xabtal la ba nga ba nga ba nga def naka su dul noonu xabtal la ba nga yéeg sa kaw étage xaru te ba léegi yow mënoo mënuñu wax ban cause moo tax diw yéeg si kaw étage am ba xaru na tey kenn mënu koo wax xam nga ne dund gu neex gi ku mën a jël paaka jam sa bopp mm. lan moo ko def ku mën a jël buum pendre sa bopp ndax ndax naqar rek wala méttitu àdduna déedéet kon xabtal mën na la yóbbu ba nga def naka su dul noonu dinañ la xabtal ba boole la ak mala mm. nga accidenté xabtal nañ la ba boole ak mbaam ngay dévier mbaam mi nekk yow tey mooy sa musiba foofu ngay jaaree sa tàggoo fii léegi ñu xabtal la nga génn léegi na maa ngi dem Dakar doo yegg jam ñaaju gii doo fa yegg te fekk na loolu lépp xabtalu dina koy def wàllum shayatin dina koy def aa Serigne Abdoulaye Touré temps bi xam naa moo ñu ko permettre damay mhm. bëgg rek nga wax ñu adresse bi nga xamee ni jamono ji foofu nga nekk ci Thiès ci quartier Fayu ñoo ngi cité Fayu euh, plus précisément ron gi foo wàcc fayu surtout sat soo prolongé dem fayu ngay dem fayu soo fa yegsee foo laajte ron gi dinañ la ko wan fayu nu mu defee ak stade Lat Dior bi stade Lat Dior bi ngay jógee mooy sud stade nga continuer hmm. soo continuer sud stade benn tali la doo jàdd fenn hmm. ba yegsi si ron gi ron gi foo fa yegsi laajtel kenkay résistant hmm. kenkay résistant ñëpp a ko xam taxi boo jël Thiès ne ko kenkay résistant laa jëm mu indi la wala ku taxaw ci stade bi boo ne fayu laa bëgg a dem boo ne fayu laa bëgg a dem rek ba léegi soréewuñ ñoom ñaar ñoo dend sud stade ak euh, fay yu benn la soo ñëwee ba si ron gi kenkay résistant kenkay résistant soo fa tourné mbedd bi tout droit la ba sama kër soo siggee xool yaa ngi jàkkaarloog sama immeuble incha allah ndax pour ñu jot la saa su ne Thiès lay fekk wala du ñàkk léeg-léeg nga ay déplacement yooyu def ci dëkk bi Ndakaaru wala ci yeneen territoire national waaw Fatick daan ñu fa fekk mën naa wax ne base bi fa la ñu koo wax ji dala naan Baye Fall Fatick ndax Fatick moom dama lay wax ne la ba léegi Fatick foo wàcc Fatick fu mu mënta doon nga ne Baye Fall si kattanu yàlla ak mbaaxam dina la indi naa maa ngi fa 4 ans de mission Fatick ñëpp a ma xam macha allah. foo mm. mënta taxaw. Mm. waaye ndax guddi yi ñu toll mën nañ waxagum ne adresse bi wér bi rek mooy Thiès. mooy Thiès ku la soxla foofu la lay fekk. ku ma soxla foofu la may fekk wala mu jokkoo ak yow ci téléphone nga liggéeyal ko li nga koy liggéey yónnee ko ak fu waaye mënta nekk ñu liggéeyal la indil la te su dee diwaanu Dakar moom ba si kenn am si si foo mënta nekk tëddal sa kaw laal. macha allah jéem cag-cag am naa ko fi cag-cag bi dina la ko indil ba sa biir kër livré la ko si kàttanu yàlla. te dina ànd ak sutura. Ah, dina ànd sutura. da la indil ba si sa biir kër. numéro téléphone yi Baye Fall. 77 euh, la 029 97 00. mën nga ñëw jotaat ba léegi si 76 489 94 01. ba léegi am na 77 861 41 72. waaye bi gën a accessible tamit bokk na si euh, WhatsApp bi. Mhm. pour ñu nekk biti réew moom WhatsApp bi mooy bi boobu moom mooy ñi nekk waa diaspora beeg nu mel. boobu moom ñoom ñi mën a utiliser WhatsApp ñoom boobu dina baax ñoom. si ñoom dina baax si ñoom macha allah Ablaye Touré Baye Fall si kàttanu yàlla seen bés di ko jaajëfal di leen jaajëfal ci ànd beeg wetaliku gi dig daje sur la chaîne des leaders ak beneen invité fii amaanillah